Diaga yéene gi nee am na tamit ay miss yoo xam ne dañu leen di jëlee Sénégal yóbbu leen Dubaay waaye nag bu ñu demee lépp la ñu nangoo yéene kaay gi di Les Échos miss Labado di nettali nee na am na jamono joo xam ne hôtel Voile d'Or la ñu leen yóbbu woon waaye nag dañu leen a xaajale ñoom miss yi kenn ku nekk ñu boole ak benn góor a moom nee na ki ñu ko boole loon Moussa la tudd waaye nag Moussa bi mu ko commencé làmbatu maanaam ko ministre ak nag ëmb ba mu fa jëlee am na sa sax doom waaye nag nee na violé wuñ ko yéen a kaay gi nee na am na beneen miss boo xam ne ma ngi nettali nee na ci biir mbir mi daal maanaam xaalis bi moom bëri na lool dina bëri tamit ay voyage yoo xam ne di nga ko def waaye nag di nga nangu li nga xam ne mooy rapport sexuel te nag lu jëm ci rapport sexuel yooyu maanaam sax ginnaaw sax mën nañu sëy ak yow xaalis yéen a kaay gi di libération nga xam ne moom la ñu a def yéenekaay gi ñu xëy fekk fa Amina Badiane mi nga xam ne mbir mi ba léegi ni daal maanaam ubbeeguñu ci ab enquête enquête yéenekaay xëy dañu xibaar naan ñu bëri ay miss yoo xam ne jafe-jafe yi ñuy xëy nañ di ko nettali yéenekaay gi di Vox Populi waa ONG Jamra ñoom nag dañuy sàkku comité d'organisation bi ñu daal koy tas yéenekaay gi de Le Quotidien nee na ñàkku kaaraange gi nga xamoon moo amoon ca diwaanu Mbuur léegi tey mu dañ ndax nag kaaraange ga jamono jamono ji kilifa yi daan nañu koy yokkoo yéene kaay gi di la sa ñu xëy fekk fa Moussa Baldé ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi daan nay wax ne ñi nga xam ne ñooy paysans yi maanaam baykat yi bu leen neexee sax ñu jaayee kilo gerte bi francs état bu Sénégal yi nga xam ne moom la wax maanaam gën gaa néew la yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na en tout lu jëm ci wàllum njënd ak njaayum gerte mi ak prix bi nga xam ne maanaam moom la état bi fixé am a jàppale na ay jafe-jafe yu métte métte ñu bëri si ñoom amuñu ni mooy ko yéene kaay gi xëy diñu xibaar naan ñu parti socialiste socialiste yi nekk ca yi ndax dañu leen a zappé ci liste nga xam ne moo jëm ci élection locale yi ñu dëg ma la moo tax mer nañ ba mara détaal yi ki nga xam ne mooy Aminata Mbengue Ndiaye yéene kaay gi di enquête xëy diñu xibaar naan ñu cour d'appel bu Thiès daan nay dëggal candidature Cheikh Issa Sall ndax Cheikh Issa Sall dafa am ñoo xam ne dañu ko clamé woon fa mbaxana doone benn ne magistrat international la moom Cheikh Issa Sall cour d'appel bu Thiès daan na koy sauvé yéenekaay gi ne moom Cheikh Issa Sall na lu toll ci benn at boo xam ne nekkul magistrat yéenekaay gi di Les ñu koy fekk fa Cheikh Ibrahima Maye Niass moom nag daan nay sermoné ñi nga xam ne ñooy classe politique bi nee leen bàyyi leen di xale yi saaga leen bàyyi leen di xale yi toj leen bàyyi leen di xale yi wàcc leen ci mbedd mi xale yi dañu leen a war a yee bañ leen a yàquloo